asalaamaaleykum mbokk yi teel a gaaw fukki fan ak juróom-benn ci dul qa'da muy digg tabaski di fukkeelu weer ak benn ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent fukki fan juróom-benn dafa bokk ci lim yu fàtte yi konte ci gaaw bi rafetul ñaanuk bés bi yow yàlla yàlla nanga ma saxal ci ngëm yàlla nag ma def ma nekk ku jub tey jubale allahuma sabitni waj'alni haadiya mahdiya allahuma sabitni waj'alni haadiya mahdiya xadiisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan leen yàlla te ngeen am kóolute ne dina nangu seenu ñaan te ngeen xam ne yàlla du nangu ñaan bu bàyyi ko ci xol buy aji sàggante aji fo xadis bi at-Tirmidi nettal na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam udu llaha wa antum ijaaba wa alamu anna allaha la yastajibu duaan min qalbin gaafilin lah rawahu tirmidi